ratukan Ki ciman Bakon ciman wana maginau Dak tina amat Dak sebi amat Ini bi khali am kisen bir yaay suñu maam nag dafa waxoon bala ñoo dem ñu ñëw tàggu la waaye balaa boobu tamit ñu lay jéggalu ci li fi xewoon ndax yow ak lu mënti xew suñu yaay nga te yow doj nga buñ dalee sa kaw toj boo dalee suñu kaw ñu toj liñ la wax yépp nag waruñu la ko woon wax ñu ngi siy tuub bu baax a baax ñu bëgg tamit nga jéggal ñu ndax bu ñu sañoon duñu génn fii di tàngal sa xol ci li la neex rek loolu lañ bëgg te tamit ma di la xamal ni bul tiit bu ragal donte maa ngi dem sama kër papa waaye chaque deux jours dinaa fi ñëw di la ménager kër gi lépp lu ma la fi war a rek dinaa la ko defar loolu moom bu ci am dara lu la metti c'est vrai jëy naa fi nga daanalee rek foofu lay tàbbee quoi parce que yaay moom yaay la yaay yaay la te bu dul dara keroog bi ma defee projet poussin yi sama poussin yi ñëw naa ci yow tàllal la loxo nga ñaanal man maa fàtte wax amin rek bon pour man jugee jógewul ci sa xol quoi moo tax gis nga li ma ci dal dal ma ci ci la siiru bi duggee ci biir poulailler bi ravagé poussin yëpp quoi moo tax wéyjur am na doole am na doole lool ci ci doomam euh, beneen bi aussi mooy effectivement ni ma waxee keroog baaxul parce que sa wéyjur booy wax ak moom da ngay wax ak moom ak beaucoup de respect même bu fekkee ni def na ay erreur vis à diggante moom ak ay doomam bon am na benn respect boo xam ne war na am sa diggante ak moom quoi ñuy jéggalu nag bu baax a baax euh, mënuñoo am ku la ëpp mënuñoo am ku la sut certes man xam naa ni bi ma gëstoo sax d'après gént yi may gént ak raw rawxaan yi liñ may déy xam naa ni dañ laa dëddale ak ñun rek liggéey la quoi mais xam naa ni bañooñu mais nag ba léegi décision bi moom bon ça maintient quoi sama mbaam nag moo ni woon nañ ñëw ci yow ba ñu am sa bénédiction ñu soog a dem loolu rek moo war a doon kàddu yi quoi di jégalu waat bu baax na tey lañu ñu décidé pour dem léegi à 19 heures ah. nañu santaat yàlla bu baax lii xam naa ni. du dara ñaanu jur kese la mën naa metti waaye nag euh, fa nga yaakaare ni day gën a tar fa suñu borom di dugalee loxo li naan ñaanu waajur ku ko am mën ngaa jéng waaye doo daanu gis nga action yi mel nii daf may tax may gën a fàttaliku paa bi ak mère ci ñaan yu ñu daan yu moo tax bint maa ngi lay dénk euh, wax bu am solo. monsieur beng nang ko japp bu baax nang ko tey ak sa fukki lo parce que gor la tu lu gëna jafé ci borom alal daf ko dal moy ko xamne lu mu wax def ko yeug nga ni dafa am euh, ben way bu ma bolé waju xam ni dafa mel sax kooku mu upp mbeng doole semaine prochaine la ni ma ma ñëw pour vraiment commencer sama activité parce que amna marché bo xamanteni ni man man ko war a jox pour ma démarrer ko ma sant ci yàlla bu baax mais sante la ko nag tamit parce que dama naan lii lépp grâce a yow la quoi su woon ak yow dara du baax moo tax daal li ma bëgg vraiment bint gravité ko parce que suñu buntu yi bëri ubbiwul mën naa jaare ci moom ubbeeku olof nag niñ ko waxee nit kenn du ko lekk kenn du ko naan nit moom njariñ rek dañ koy doy yow sax xamuluma loolu baax ak maa xam loolu moo waxoon mooy say taxaw yow rek yow rek laa nga fi mu ne yaa ngi toog lu ne yaa ngi koy wax di déliré li ma leer ba leer mooy ngañ boo jekkoo ngay delluwaat mu la comme ni ma waaye kon nga xam ne maa ci génn kon maa ko mën a yàqaat ni ko nanguwaat ko say loxo set do Binta Binta yow daal vraiment man yow pourtant yow boobu ba léegi maa wax mais pour yow man damay caaxaan yow xawma loo xamul ci man mais am na loo xam ne xam nga ko ci man du man du man man man sëñ ngañ mii maay solaat ma daal dëgg ko ku ma seet di ko seet non loolu way wow daanu na maa ngi ci leneen man bañ naa ko ba keroog ma ne la yow seetal ma non du ma duggaat ci jabar te seetu ma ko ndax bugguma duggaat ci jabar ba pare di ci génnaat loolu nag soo ko bañee da ngay tànn ci fi ngay dugg moo tax loolu teg naa solo Kumba Sekk at jar jarul ma ko ma bëgg non li gën a garaaw sax laa lay est-ce que xam nga même bu marché yi commencé ñëw affaire yi déclenché waat man kër gi du ma ko génn damay dem ki ñëw toog ci kër gi xool bu baax liir carte gi xam fi may teg sama tànk fanta damay organiser waat samay affaire non <laughs> lu mag def dee su dekkee ba ko bu ma ko defaat jamais jamais wax nga sa wax jox ma de waaw lu tëwut a xam dafa yàggu yàlla na sotti ak jàmm ak salaam ba nga commencé waat yëf kenn donc laa bëgg a daane mooy grand bi seen diggante yéen ñaar moom binto yàlla dogal na ko ba pare man tey d'accord naa parce que xam naa lu suñu borom dogal la yow tamit na nga nangu gëmewu la te loolu sens la ngir yalla ak yonent bi binta non munoo fay nek di sañse di julli di werdi di tok di xaar ba kañ fan nga jëm li la da nga sa carrière sëy dafa dess il faut nga amaat jëkkeur tay ji bu dul won mbeng sax dañ la war a utal jëkkër quand même na bi nga xamanteni nak ya ma gëna xam mbeng mom la aduna bi wara mu ñew taxaw sa kanam jébul dama ni da ngay grand bi jamm ni ñoy man loolu la gis ni sey ak mom அம்னாடு இருக்குது dégg sëyuma tey sëyuma ëllëg te gis nga mbeng mii ku dof dof lu ba may ma ko te bëgguma ko xam nga cocktail monot, xam nga ko bis booy nelaw sa néeg ci ngay xam lan mooy cocktail monot. xel mi moo xóot yow yaa dàq gas kaña dangaa xóot xel la xóot xel la xóot xel ba booy wax sax da ngay ñam ñam mi noonu ngay def. sama papa noonu la mel buy wax day tëb quoi. bu ma bu ma wax sax bu papa dégg nga lu ma la wax sa papa lu muy def yow la concerne concerné paaka man da ngeen di dem da ngeen a toog wax li ngeen wax ba pare ñëwaat ci man nena yene ngi jéggaloo yene ngi nangam man awuma dara ma di jéggal lu waaye rend rek ci sa loxo lay nacc benen bi ci dess moy yow yow di nga tak fi say bagage ni ngay dem léegi yow ah ngay dem ba foofu nga ne dangay ñëw baleel ma minasal ma soxlawu ma ko loolu boo ko bëggoon a def do genn kër gi naan yaangi dem sa kër papa ngay tok fi gis nga bale bi nga doon def fi menaces yek togg yek raxas yek yoyu bo démé jéeg buni faaj lay wut mu ñew ci kër gi ma diko fay waaw ku ñaan bo amulé bo jëndé am ku ñaan ñak bo jëndé am lay indi ci kër gi mu di balé bale di raxas ba mu set wécc di défar ba mu baax soxlawuma sa dara yow bo xasee ba tak say bagage ba dem sa kër bay rek jëm faa tok ndax yalla jappalé la fa ba nga am fa lu baax am fa ju baax ñu mayé la ñaanal yàlla yow boo eggee foofa jubóog ña nga fekki nga jubóog ñoom seen jikko ngeen ànd waaw yow boo eggee na nga góorgóorlu wax sa bàyyi mu wutal la liggéey wala nga jéem a wut nooy liggéeyee te bàyyi tëdd beeg jóg bi bal tëdd beeg jóg bi ak sol maas long yi paase ba mu taxaw jéemal baal sañse bi jaay taar bi jéemal wut loo def boo ko defulee foofa ña fa nekk dinga leen soof waaw benen bi ci dess nak bala nga jaroi kër gi samay jaaroy or na tegu fi ci sama loxo bi ndax abi wax na ma ko ba legi mang koy wër wa comme ñakante la nag da nga rew rek ak soxor iñaan doonu sacc sama jaaru or yi bala nga dem sa kër bay di ko jaay di ko jënd ay simis di sol wala naka sudul non tegal fi ci sama loxo waaw yaay hmm, man ngay nga ma ak sàcc. yow yaa yooyu bëgg a gi ndax sàcc nga jaar oor yi dem bi seen papa ne acca rek nga rek ko sa da ngay dem. la fekk ci bi sama saak. mais kan moo ma fekk ci sama jaar oor yoo xamante rek mënu ma la koo wax. non defal naa kan ah. moo ma fekk ci bi. la fi fekk. Habib moo ma fekk ci saal bi man fekk sa loxo ci sama biir saal nga génn sama jaaro yu mag yi kenn laam yu mag yi. waaw moom nga sàcc. waaw dafa am loo um. un mayu la na ma parle pas de Kiné Lam nii de Daaro Mbaye damaa bëgg déglu ma ma wax la source bi nu mu demee. man maa dugg ci saal bi fekk ubbi sa saak jël sa jaaroy or génn dem yoonam man maa woon loolu duma ci wax parce que xam nga ni Habib sàcc la. c'est une loque humaine. yow yaay sàcc bi yaay loque humaine xawma bi. yaay waaw yaay yaa ngi saaga erreur de yaay. lu tax nga koy saaga ci tubaab booy. yaa ngi def erreur lu tax du ma def erreur mi mosoo koo xamee jël. Eh, waxuma ak yow koo xamee sàcc. kër gi benn sàcc laa mooy sa taw bu góor bi ci kër gi muy Habib. xam nga lan la yow man damaa waxut ak yow yow waxuma ak yow ndax yow doo xale doo mag yow yow lépp nga xam. yow nitu démb yëpp yow mooy yow mii ñuy wax nitu démb yi ñuy wax mooy yow damaa bëgg nga génn ci samay wax. xam nga la laa lay xamal bugguma coow bugguma histoire te def naa loo xam ne nag ku ko boo sàccee doo bàyyi de sa kër bàyyi moom doo fa dem te def nga ko sa taaw bi ci kër gi. kii du sàcc. yow mën nga génn ci wax wala mënoo cee génn kii donte liggéeyu deful dara waaye du sàcc sa sàcc baa ngi nii ci kër gi. yow nga yor ci kër gi moo bari. yow da ngaa yor sàcc yor càgg ci kër gi te nangu woo waaw li nga wax ci kii nag moo man gàcce ngaa laam. tëjal ma sa gémmiñ laa laal man eh, gàcce ngaa laam rek jaar or yëpp. Eh, booy ñu dem dugal. yow lay waxal. yaay def leen kii direct moo eh, xam nga lan du ma seen morom dégg nga direct direct moo nekk suñu yaram ñun kenn yi ngay wax nag. ci yàlla ko sàcc nga moo tax nga bëgg a dem sa kër bàyyi daw. man ngay accuser loolu. yow lay accuser. sa sàcc baa ngi ci kër gi Và cổ càng kỷ mình nó cũng Cô đem đen lô xe Phật ni phô mas kujakal. Ah, man din na mawag. Assalamualaikum. Eh. Assalamualaikum. Ah, yo mi. Mera na. No, mau mera. Eh. Iwa ko siwa. Sawa dia. Badiane. waaw ci loo ne. yaa la nii waaye <laughs> nii. <laughs> ah nii baax na ci. non dëgg la baax na ci. des fois nga fiy ñëw. Ah, ah. seen papa yi seen yooyu nekkee noonu ngeen bañ cee dugg. <laughs> parce ñoo ñàkk fayda. man lii daf may neex. ngeen toog nii xam nga. bokk ndey bokk baay loolu dama ciy kontaan. ah seen problème papa yi ngeen génn ci seen yoo nekku ci. waaw mel ne leen mu roog soow ndax ñoom dañuy dem bàyyi leen fi de. yéen a fiy nekk na ngeen jàppante. dëgg yow mii sax doon nga fi ñëw waaye danga maa bàyyi. waaw waaw dëgg tey looloo tax euh, ma jël décision ne xaar ma ñëw seeti sama bàjjen. ah ndax bàjjen dafa fort <laughs> te nag euh, bàjjen li nga wax dëgg la nit ku nekk fi nga war a dem danga fay dem. li ma woxoon mhm. te jëmm ji uute ko néew fa tey jii moom laay répété waat tey jii. Mhm. jëmm ni nii joo xam ne ku neex a àndal la. Mhm. ndax dafay gor. Mhm. te am na ñaanu waajur. Mhm. Seck. Binta mii sama yaay da koo ñaanal ba xëy wuy ji ko sànq. sama baay. daf koo ñaanal ba xëy wuy ji boromam. wax nga ko fee sànq. xam nga loolu rek la nit di sàkku. jii man. aw mu lu may ut ci sama baay wala ma ko ci sama yaay ndax lépp dañ koo takk ba mu jekk tokk ci loxo man su may ut ñaan wala muy ut barke ci jëmm ji naa koy ut. laa waaye nag Binta. loolu da koo mérité ndax lu tax sa yar. lu tax sa dal. lu tax sa teey lu tax sa personnalité. tey jéeg yëpp bëggoon a mel ni yow waaye mel ni ñu yow ndax ni nga mel yàlla la ko def loolu da koy sant yàlla tey suñu bokkee ngay sama sœur fierté la ci man yàlla nag dogal hmm. mu am lu mu doon mébét ci xolam suñu borom nangul ko ko alhamdulilah mooy diine ko mu saf saf depuis mu juddu nekk xale ba mu toll ni diine rek ko saf yàlla may ko borom kër goo xam ne tamit jaamukatu yàlla la woon hmm. kii moo baax hmm. kii kii moo gore kii moo mën a muñ waaye xam nga ni man fii de temps en temps may jaar nga def ceeb bi toog yaa ngi dégg. def suñu ataaya. yaa ngi mën fii ba léegi. yaa ngi dégg mi ngi noonu. fii ñu ngi fi ñu fii ci frigo mi ngi noonu. sama ñoom papa nag ci lu ñu ne ma loolu new ma ci. Hmm. ndax ku nekk ak sa côté ñoom loolu lañu ñu gis ci loolu la nekk. d'ailleurs sax moo waroon teewaay bii parce que nag euh, bàjjan fu mu toll nii xale bu góor laa de. ah koo koy eh, waaw mi ngi xale bu góor laa te dafa jot nag euh, bàjjan ma jël soxna nag. ah yow yéex nga koo def. tax ah, nag ah, ah jël soxna. nga koo def lu baax la. loolu lu baax la. waaw boo ci kii rek ñu taxaw ci. parce que dama gis nii kër ga ni mu demee nii. donc pour ma fédérer leen mooy il faut que am jabar yóbbu ko kër ga. Mhm. comme ça muy mën di togg di leen marché. Mhm. kër gi mën a stable. Mhm. parce que gisuñu jigéen bu ñëw daagu ci biir kër gi sama yaay xam nga ko. moom du bàyyi weer ci benn fan. ku yëngu mu dal sa kaw ku yëngu mu dal sa kaw ma ne daal solution bi mooy lii dinaa ko gérer donc mu jaar ci yoon. ci kaw loolu nag euh, ci maam

parce que aussi tamit euh, temps est passé yàggul dara gisante nañu mu ne ma voilà euh, dama bëgg a wàcceel kaamil sama yaay affaire yu demee noonu ma ne ko loolu y' a pas de problème na t'en fais pas jigéen soo ko bëggee da nga koy toppatoo. jëkkëram dafa jaamu yàlla ba jour ba muy décédé cinq heures de julli ca jàkka ja nekk ci ginnaaw imam bi imam bi daa sëlmal geestu gis ko mu wow koom ci ginnaaw nga xam ni kii dafa jaam borom ba ba wuy ji tey jii bu loolu amee man ma xam li mu bëgg. Ablaye Ablaye yàlla bu la dee dog ngañ mi eh, xam naa cofeel gu mu am ceew ak yéene gu mu am ceew ak ruus la teg ci moo tax nag wax sax gudd ni donte li mu sedda lépp dëgg waaye daa def lu rëy fee ñu jóge day mboolem ku fa toog bëgg nga ci ngañ mi responsabilité gam fa wane diine jëm fa wane kilifteef gam fa wane jërëjëf yàlla yàlla guddal sax. amiin amiin Seydou amiin Seydou. ni mu war a taxawee yëpp taxawee na ko. wax ko wax li la ko wax ñëpp toog mu jël responsabilité yoo xamante ne man damaa saa waajee bëriwul fit may la borom kër goo xam ne si ni mboolem kuy jigéen ci tund wi bu seen am borom kër gu mel noonu. ba ne la ne xam naa binta am naa ndogal ci moom am naa ndigal ci moom am naa cofeel ci moom lu ma sañ naa ko def jël responsabilité ba ma sëpp may la borom kër goo xam ne diina ja bari na ngor ga bari jom ja bari na li ma ci gën a neex nag sa borom kër gi nga xam ne si moom moom la yàlla njëkk a booleel na melul lépp mu seede ko diina jàmm ci gën a rey waaye kin la may maa ko xam mbeng bu dee jom kenn ëppale gox bii ñu dëkk xari tabaski moo ci man facture courant yi moo ci man facture ndox yi moo ci man am nga jëkkër ju baax a baax a baax a baax a baax te waxtu nag du ko raw allahu akbar coo dëgg ca jàkk ja la koy fekk imaam ko seede koro hmm, hmm. hmm? dina ci ci bàyyam yëpp jël na kon nag waxal alhamdulilahi rabil alamin waxal alhamdulilahi rabil alamin jërëjëf nag damay ñàq ni dafa tàng jërëjëf jërëjëf def naa ko cent mille francs mu wàcceel yaayam kaamil kan ko loolu c'est normal parce que ñoom ñooñu fi ñu nekk mënatuñu dara donc ñun lu ñu def ci àdduna ñoom ñu ngi koy gis kon dafa yoon la su jotee ñu ñaanal leen mu mën leen euh, fekk fi ñu loolu daal moom moo doon situation bi te nag yow yaay sama bàjjan mënuma def loodul yëkk lii moo ma fi indi woon ah dëgg la de waaye wax dëgg yàlla man de musuma yëg sax ne yéen ñaar seq ngeen dara li ngay ñëw ci kër gi di dugg di génn yépp dama defé ne won rek ay magal rak ngeen waye comme non nga ko gisé man de awma luma ci wax ah ak papa mba wax nga ko sa papa non kenn yegu ko nak ci famille bi parce que xam nga rek man sama yef dans l'ombre lay démé donc wa légui dang may may ma waxtaan ak papam ba xam légui après lu ma wax rek ah, dina la wo ah. waaw parce que so gisé ma proposer la ko ni bëgguma def naka sulul dama bëgg a jaar ci voie bu bi moo tax toujours ma teg ko ci yoon parce que egg foo xam ne nii su ma ne ko taaliboon mu ñëwal loolu laa ci bañ moo tax ma ne nañ ko teg ci axe rek coow li jeex. waaw baax na bàyyi rek ba ma gisanteeg papaam. d' accord waaw papaam lu ma wax rek dinaa la woo. d' woo merci Badiane. jërëjëf waaw kay waaw kay nuyu ma sa yaay. mais nuyu ma sa yaay. bien des la famille ok on se capte sa yaay. ilaha illallah moom tima tima ndekete yoo li ñuy wax yëpp kii ngay génn ah moo kii lu mu yor yow daal yaa ya ko naan kañ dem place bi nga war a waxee ko wax ndax maa ndekkee rajo sag tagal waaye nii rek lañu ne bu ñu defee lu seen yoon bu ñu duggee loo xam ne ay fiipara paj lañ ay seytaane lañ dañuy wenga seng mbaxana ne ku tagal waaye li nga def gàtt laa la ci sant lu toll ne tarfatal ay ni jaajëf nga doon wut merde laa ci teg pecce moom ma looy gàññi ne en ko façon hmm? ah war noo jaaxle sa sa nga nga mel ni tàngal na rek day kilifa dem fori sa docteur alba àll nga xam ne la te ne eh, jinjeeru nga dem ko ne ngeen sen eh ma takkat day demee neneen ndax ñaareen waaye ëpp leen ma doole. mën nañoo ba ñàkk sax foofu man maa demee xol man maa yéene yéene lu baax demee ak xol mais reste nu mu ko weesu cofeel gi ma am ci yow. respect bi ma am ci yow. moo tax ma def ko ba pare am complexe jàkkaarloo yook la ko moo tax ma indi sec pour sec wax ak yow. waaw moom mooy mais lii ñu def dara amu ci. moom mooy sa fenkat xam nga toog nga fii ne yeeyaay danga may danga may jiitalu tagg di mel ni taalifkat yow danga maa mën a wax leen lu ma lu ma lu ma ñunu yow sama ngërëmal rek sama ngërëmal baay ma la koy làq fan nga ne. danga cee xam dara. message bu toll nii foog ma wax loolu la motivé pour ba la. Ah? dara nag mënumaa motivé ndax ki ngeen ma may bëgguma ko nobuma ko tey noguma ko ëllëg ci ma ki nga xam ni daa tuxu tuxu tuxu tuxu tuxu tuxu tuxu ba xamel wu jam ak jor nana nana nana nana nan ba xamel jand ak jor yu ci ma gis nga ni nga mel ak ni nga jongoma looy wut ci ki ki lu mu yo ki bayam da yo dara ah nak la la sa papa di raye man gis na ni ni ni ni ni ni ni ñu ray la ci ma yaa fayda ya ñak jom ah man man man man man nopp daloo dina man de man man man tax damay bëgg waan yow est-ce que kii li wax deug la ba paré mën nga fen mëna a fen ngoo xamante yow sa yaay kañ nga ko wàcceel kaamil fii de wàcce woo ko fi xana dëkk ba nga ko yone sam bàjjen ya la ko yone xaalis bi mo bi mi wax ni sam bàjjen la ko yone parce que dama ko ne na nga defee ci dëkk ba moo gën a tane ko mu dem. ah nga sa kër bàjjen fii. déedéet bàjjen xam nga li sama sama sama yaay ci dëkk ba looloo tax ak ay nitam yi nekk foofu. mais dinaa yaa ma bett xam nga lu la bett mën ma mën la man looloo looloo ma dal fi mu ne nii mais toi là tu es dangereuse yow waxuma la dara papaam ak sa papa ñuy ay ennemis nga ni sëy dina fa am. du fa sa am bu ko sax xalaat loolu sa papa da koy deg rek rendi la xam nga rendi di sa bop ak sa baat. yeen ñëpp ngeen ma meñu ngam bu toge fi mi wax mi wax ak man melast ku na 40 fois. Hmm. man dama xam li ngeen ma andi lu mu doon sax man. non gemi gi moo xaw a weng ma loxo yàlla bindee ah. bind la rek. xam nga xam nga lu bëgg man mom awma sax temps pour wax ak yeen ni ngeen ko andon non fasiko di wut wa goor ak jaajëf ah na ngeen ànd dem tekki ji ko. maa ngi dugg ci néeg bi nag maa ngi génnaat. wuy ma non li nga bëgg nag mu ta nekk seet lañ ciy këpp kaane nag mais lan la mais lan mooy affaire moom xamante ak mbeng bu baax. depuis mu nekk xale moom mbeng génn nañu. yéen ñii soxor lay nuroo. mais du nii. wuy ma ñun li ñu war a def def nañ ko. toog leen lii nag lii nag lii nag na ah. waaw xaar ma ma na ah. ma ma ñëw am na lu ma la xool. pour lan moo tax. defal ndànk lan mooy problème bi jigéen la lan mooy problème bi jigéen la fa mu sagu sekk a jàpp lu mu jeex la dafa sul la dafa agressif bu mel ne xam lu leer affaire bi ay ñaan lañ ci def ah. parce que kii sama teraanga la ma nar a xaj lu leer laa la wax waaw mais lu mu jeex bi yow duglu ma sekk yow buñ la wax loolu liñ la wax loolu wax ko waaye wax naa ko yow mais non da ngaa ëppal wax ji da ngaa wax ba kii découragé am na loo xam da nga koy dóor rek mu jeex li nga introduire moo ah? li nga introduire dégg nga mais man bala maa dugal bomb bu toll nii mais dama koy raay ba sedd yow nga ñëw dugal. dugal naa léegi nuy def. Ah, na na dem dugal. jiitu waaye na dem kaay. waaw ah, ratukan ratukan ratukan ratukan yaayu xaale yi ratukan yaayu xaale yi ratukan